salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ba tey comme ni ma ko waxee maa ngi ànd ak Alaaji Mass Ndiaye borom SBT Média direction le 18 mars boo xoolee tey fi ñu toog nga xam ne tey ñu ngi ci place boo xam ni place Ousse la sunu grand di ko nuyu bu baax a baax di nuyu gérant yi ñu fekk di leen bëggee di leen ñaan jàmm tey nag ndaanaan laa seet si Siteu bu anti di xale war a bëri le 18 mars arène nationale diggante Coly Faye yi loolu arène nationale la am yaaram moo ñu fa tey ñu seeti xale bi champion bi war a bëreeg Modou Anta sans frontière numéro 2 Siteu maa ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay di wax bisimilah bisimilah ni yàlla di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba gaa ci gaalaama bàyyi glace Mbacke Sindi di ko ñaan yàlla mu yàgg fi loolu tawéer Mbacke Balla ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu julli si ñaari waajur dinañ yàlla fu ñuy tëdd yàlla na yàlla yërëm leen xaaral leen àjjana di suma rakk bi dem yàlla yërëm ko yàlla xaaral ko àjjana maa ngi nuyu taan bi yëpp ma jóge si loolu di nuyu waa maintenant Gueule Tapée Fass Colobane waa ñu kenn taan bi yëpp Grand Dakar ñaar tali fépp xam bu ñu jógee si loolu maa ngi nuyu sama père père Mambay Guissé maa ngi nuyu bu baax sama yaay su fay jaañ sama maam maawaloo waaw sama mbokk waalo waalo maa ngi nuyu sama grand entité bi France maa bu baax a baax di nuyuwaat Ousse waaw benn benn nutrition sama waay bu baax la waa di wax mbëri bu ñu amee kii nañ ñëw fii waaw waaw nañ ci ñëw bu baax a baax dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ba tey comme ni ñu koy waxee le 18 mars Siteu bu anti bëreeg fii nii digganteem ak booy Diop jugee ci defet ñuy wax Siteu bu anti mu dem jóge fa jël Modou Anta jël Modou Anta numéro 2 sans frontière nekk xale def 4 combats 4 victoire ne ci yoon nga dem jël ko lan la ñu xaar ci combat ah, waaw xale la man làmb amul lu ma ciy lu ma ciy xel ñaar Boy Diop lu ma jugee yàlla moo tudd défaite bi quoi dañ koy sante suñu borom dafa doon lu gën waaw mais nekkul ne dafa ñoo mën moo tax mu daan ñu làmb ji kenn mënul fii ku yàlla dimbali ko fi waaw Modou Anta dama ko jël nag dëgg la xale la may xale mu nekk si yoon mu nekk si yoon waaw yoon la ma jël ko quoi waaw mais du risque du dara. mais est-ce que yi nga doon jël ak bii dafa wuute sa diggante ak Modou Anta dugal si Modou Anta. waaw gëm sama bopp xale la xam ne damay entraîné gëm naa ne ëpp ma dool dàqu maa bëri loolu moo tax ma jël ko waaw Fass yaakaar si man temps bi yaakaar si man ba ma jógee ñëpp jug te la 18 incha allah dina xam ne moom combat mi daan bëri ak kii muy bëri ni bokkul incha allah. ah Modou Anta yóbbante na woon léegi nee na làmb ji amoo ci dara. nee na bu weesoo ñëw ci biir stade bi tuus li ngay tuus bëre jot nga bëre mu jàpp la daan la boo indee xeex mu xeex a yow loo indi moo ngi ci moom. waaw xam nga fu lu mu déggee moo neex rek mais toog di wax le 18 incha allah sama bakkan bi dama ko ñëw tay leew bëgguma ci dara ndax làmb ji daf maa bu ko jarlee benn jar la fukk. moo koy yóbbu moo ci gën a yomb de. dégg ma la wax bu ko jarlee benn jar fukk moom bu tëddee di nelaw loolu yéen la ko wax mais bu tëddee nelaw wéer ak njëgënaayam dina xam ne cité bu anteeg bu doon bëril bokkul. nga ni barki Serigne Fallou nee na combat yi mu am yëpp bi moo ci gën a yomb digganteem ak Siteu bu ànd. lu garaaw laa lay tegal moo la moom moo la gën a xam ni am na làmb moo daan te am nga combat de damaa bëgg nga liggéey ba def ñàbb nga ñëw ñu jàmmaarloo man ak yow combat nga am. nee ma la wax bu dee bëri maa ko dàq téeméeri junni yoon sa benn benn yoon ngay def boo ma ko defee si kaw nga jëm dama lay buddi ba si kaw dóor lu suuf. nga ni ko lu garaaw laa lay wax. yéen a ngi fi maa ngi fi seetaan leen ba le 18 incha allah. day lan day lan nga ni. ku ma bu ante xam ne du réguler bër du ma réguler bu ñu nee bëri maa kaw. nee na lu ma la wax bu ñu nee bëri si kawam lu garaaw laa lay wax man du xaar bër bu ñu nee bëri si kawam lu leer laa lay wax. taxaw dëggal sa bopp. incha allah rabi moom na dëggal boppam rek man damay ñëw moom na dëggal boppam rek. non wérantu da day ñëw damay ñëw sa kaw. mais da bu yeboon na wàññi bu jaagoo xeex dégg ma la barki Serigne Fallou bakkan bi kay bëgguma si dara koy loolu jeexal na wax bëgguma si dara lu risit dama ko ñëw jaay moom. ma su bëggee na ma rey. mais dama koy daan dama koy daan si kattanu yàlla. nee na combat bi dafa am fu mu koy yóbbu ci làmb te moo a yomb nee na yow yaa a yomb si adversaire yi mu wax baaxul sax instant bii nii woon wax waruma damaa war a liggéey incha allah wane preuve ndax si lu na Serigne Touba mais kii taxumaa sa jóg te bu 18 incha allah naa ko woon Siteu bu ànd ngay bëre ci le 18 mars âge combat bi ku ne xam ne ndakaaru jamono jii nu mu mel ci làmb dañoo ñëwaat teewaat làmb ji ngay bëre journée boo xam ni Pape Ndoye mooy bëre grand combat bi ak Coly Faye numéro 2 âge combat bi lan ngay waajee le 18. waaw le 18 maa ngi koy waaj bu baax maa ngi waaj bu baax di ñaan yàlla Pape Ndoye grand yàlla may ko ndam ci kaw Coly Faye allah damay daan ñëw dugg si tànk yi mu daan incha allah benn la si boo tax nañu bàyyi yëfu seetaan yi di jaxase ay mbër ñun ñëpp ñoo yem mbër yëpp benn lañ daam ñuy ñuy jaxase ay seetaane lañ supporter yooyu nañu bàyyi yooyu ñun ñëpp ñoo far Fass Médina Gueule Tapée Colobane mbër yi ñun ñëpp si gis sa da ngay dem nuyu ko jàmmasante dem sa yoon mais supporter nañu bàyyi ñu yamale mbër yi nañu yi ñëpp benn lañ bébé jeen ak Arafas ak Benteñe Ibu Afia ba si ñëpp ñun ñëpp benn la ñoo bokk ndey ak bàyyi temps bi benn la àdduna du neex ba ñu bëre mais supporter nañu bàyyi ñuy def maa ngi lancé waale boobu di si woo ñëpp nag di woo Médina Fass Gueule Tapée Colobane bàyyiwuma kenn temps bii maa ngi leen di woo ñu ñëw na combat bi yëpp moo koy def nee na grand combat leen yóbbul dara. du dara xam laa la la si am ñëw na si luy neexee maa ko def incha allah rabi maay bëri maay xeex moom la taxaw rek mel ni kuy faraw. yéen i bëri combat boo xam ne drapeau Favivi Ndiaye la mi nga xam ne moo nekk Zik FM yaakaar naa ne sax naa la dëkk nan ngeen waajee combat bi ak drapeau bi ngeen di bëri. combat bi dëgg ma la wax nu ma koy waajee musuma ko waajee sama benn combat ndax xam naa fu ma yóbbu. billaahi musuma combat bi nar naa neex daal. di nga gis xeex di nga gis bëri di nga gis ambiance neexee yàlla nañ duy esaat ba mu fees maa la ko wax. combat bi musuma ko waaj ma koy waajee ko waajee ba sama benn combat. mais ndaanaan ngay bëreel de. wax mais ndaanaan laay bëreel dëgg la man daf may neex ma bëri ndaanaan daf may neex ma bëri ndaanaan te incha allahu rabbi. que xam nga ko bu baax moo daan lijjantu ma ko sax xam xaw ma ko. xam nga bëreem qualité bëreem moo ma la wax man ma toog sax ba jël mbër naan dama lay seetaan ay YouTube man nekkuma si yooyu noonu man sama bopp laa gëm lu may liggéey ma bër jël mbër sax dama lay seetaan ay YouTube wala affaire yooyu man doxuma si yooyu sama bopp laa gëm te xam naa li nekk si man nekkul si yoon de. maa ko bu sañ-sañ fuuf ko daax bëri maa ko doole. nee yoon te ay moo tax mu jël la. Ah, ci dañ ko daw ma jël ko waaw ki ki ko jël nag ñëpp ñëpp daw ñu jël la bu toogee wéet ak njëgënaayam dina xam ni que kii gaynde la wala du gaynde te bu désir dinaa ko. moom dafa am kàddu bu mu wax ci yow. nee na arbitre bi moo la fi bàyyi te boobaa na nga bañ a yooru te na nga samp jaago ngeen xeex ngeen bëre ndax bis bi moo ko laaj. <laughs> moo daanta maa lay wax ni déggoo lu ma la wax na nga liggéey lépp loo mën na ko liggéey na nga liggéey ba def ñàbb te xam ni gaynde ngay bëreel kàq bi ngay bëreel. nga ni bi lay bëreel. Eh. lu wow kong moo fi nekk. doomu la la wax man doomu Fass Gueule Tapée Colobane doomu Taound laa nee na mooy ñun bu ñu waxee dëggal ma la bu ñu nee làmb faas a tax ñun dañoo judd si keppaaru làmb ñun wàllu jaar wàllu jaaruñu de dañoo judd si keppaaru làmb maaguñu bëri bu ñuy xale ba léegi ñu ngi bëri moom it géejawaay dëkk de te roi des jaar na fa waaw allah roi des jaar na fa keppaaram lay jóge ma ñun faas lañu dëkk faas ay ndaanaan rek fi ne faas lañ dëkk bu ñuy xale ba léegi dañ daan daw jàngal làmb mooy yàqal suñu lépp dañoo gëm làmb bëggu war na Serigne Fallou Mbacke. nee na tapet nga ndax keroog ñëwoo arène nationale. dégg lu ma la wax moo ko wax de nee <laughs> ñu ngi may di may saaga ko defati maa bu fekk maa ngi dégg nga maa woo njëkk a maa njëkk a woote. su fekkee su fekkee maa njëkk a woote yàlla na am ndam sama kaw. nee na yaa woo booy ma la wax xam nga loolu du ma ko risqué su fekkee man maa njëkk a woote yàlla na ma daan yow mu doonte su fekkee booy sa booy ñëw ma njëkk a woo yàlla naa am ndam sa kaw mais mais mais mais surtout ànd bi mu gisoon contre Petit Baye Fall ah macha allah ci ci ci ci ci sañ-sañ bi. te ñoom ñaar ñoo bokk ci qualité bëre bi xeetu bëre bi mu ko bëree kaw sa diggante Petit Baye Fall nga xam ne par mën naa ne yaa ko njëkk a jox deer yaa ko njëkk a dégloo mu ne est-ce que est-ce que surtout ànd boobu noonu mën nañu ko gis le 18 ci diggante ak nga xam ne mooy Modou Anta Samb incha allah bu gën a garaaw nga gis ndax man bëre bi tey bu yokkul du wàññeeku dama nekkal ñu sama mel ni ñu samay grand am pija ay suuru fall am tonnerre ay booy jobaas def si ñun xam-xam yaa ngi dégg loolu bu yokkul tey du wàññeeku ndax loolu fàtte nañ ko sax yàgg na ñun ba mu budul làmb dañuy mbapat di compétir. ñun bëriwul combat bu neex te metti waaw est-ce que moom la ñuy xaar fi loolu la Mass wax. barki Serigne Fallou Mbacke la wax ba moo daan su taxawee ma dugal ko top 5. nga ni ma man su ma lay daan du ma daan jël bu ndaw man su ma lay daan mbër. par force de top 5 nga jëm. ok ñu gis ne même combat nga ñàkk ci maanaam ma amateur yi meliwul macha allah mooy secret lan euh, ki daanaka daan yëpp ñu mel leen mais macha allah combat yi bu am defar sax defar bu justice nga xam ne ñaan yóbbu rek am nga xale bu entraîné ba am doole yeeg sa bopp nga mën a bëree ñeme teg si am ku taxaw sa kanam da nga jàpp ne yaa ko mën te tey defet yooyu noonu moo lay won moo lay jàngal quoi te wan na ma lu bari jàngal na ma lu bëri te dafa du ma daanu yëpp boo xoolee maa bëri ba daan sama bopp amul ku si ñëw song ma bari daan ma amul man maay dem maay attaqué maay def action maay bëri maay mais jàng naa si lu bëri liggéey naa si sama waa staff lu baax ba loolu te gëm naa ni bu ma ñëwee incha allah rabi attaque mais sa diggante euh, bi sans frontière est ce que ak bisimilah nga def na nga naan def wala bii da xaar <laughs> déggoo lu la wax <laughs> damay ñëw de. kon man du du bàyyi yoonam damay jox man taal ba sëñ Fallou laa man duma ma réglé. nee mu gaaw mu yeex si yow lay dépendre moo ko wax. <laughs> moom combat bi mu bëree moom bu yoru moom mooy yorukat bi. moo tax day xeex day bëree na. bokk nañu benn journée. gaay gaay gaay ko fekk si ma song rek. nga mais bu ma songee. la songee lan boo ma songee. <laughs> waxal ak moom Modou bu la songee lan la ñuy gis. boo ma songee doo ko defati de lu garaaw laa lay wax. billaay wallaay boo ma songee. naa la daan jël boo xam ne naa la daan jël bu rëy wër na Serigne Fallou boo ma songee naa la daan jël bu rëy te man maa ngi ñëw sa kaw man du ma ko xaar sax man bu ñu nee bëri maa ngi si kawam dina xeex dina bëri moom bu yóbboo na pare loolu noonu. dina xeex dina bëri dina xeex dina bëri. bii laa gën a fonk. combat dayoo du adversaire bi mooy bëreel sax moom bëri la comme yeneen mbëri mu daan bëreel de man duma ko tëdd sax ba koy bàyyi xel mais combat boo gisee la bu fonk man sama waa koñ dañ ma yaakaar sama koñ dafa jot mu am champion yaa may dégg moo tax ma fonk combat bi gars yi damay tëdd bay nelaw sax parce que alxuraanu karim sama rabay sonné fajar mais bu ma xalaatee gars yi damay tëb jug ndax moom waruñu maa gën a gore sama booy yëpp taxaw bu ñu mel ni Coba Bouba ay Kalidou booy yi maa ngi ko nuyoo passage sama booy réew bi. Kalidou ñu ngi koy nuyu bu baax. waaw ah, ay Padoul xam nga ay Thiaw gars yi Babacar Diatta Pafe gars yi bu lim da ngay jum quoi boo xalaatee ñuy sonn si yow te defar leen dara lu ko jar war na Serigne Touba jar na ngay reyante mais du adversaire bi ma jël wala ay ñu koy tëbal ak wala yooyu noonu làmb laay def man xale laa damaa nekk si yoon te incha allahu rabi laa la waatal le 18 la andi ndam bu neex yàlla dara boobu fas ay fanaan nga ni ko. incha allahu rabi le 18 drapeau Fass lay fanaan si ndax sama bakkan bi bugguma si dara. lan la ñuy xaar si mobilisation combat bi. waaw ñun Fass ku ñu xam-xam ne <laughs> mobilisation mooy loolu. incha allah rabi mobilisation moom stade bi nañu koy dugg ba mu fees a ngi waaj le 15 maa ngi ciy woo ñëpp mars maa ngi ciy woo ñëpp maa ngi ciy woo ñëpp Gueule Tapée Fass Colobane Médina bàyyiwuma maa ngi woo ñëpp si open presse bi ñu ñëw teewal ma waaw lu bés boobu ñu demandoo promoteur bi waaw waaw daa am ar maa ngay sant bu baax di ko gërëm ndax euh, maanaam ñu baax la ñu ko wax dëgg yàlla moom ñun ay xale lañ defaguñ dara si làmb nag mais jox nañu cër bi nga xamante ne tey jii day may ni sax ñun maanaam ay bu baax di leen di ko wax ne le 18 nag na xaar mobilisation bu takku billaay walaay nañ doy esa bi nañ ko yëngal nañ bëri nañ daan incha allahu rabi ci kàttanu yàlla waaw comme ni ma daan war maay fan waaw fi mooy benn nutrition ah Ousmane ko moom quoi sama benn gannaaw bu baax la. yi ñu tiim ni ay lal la nii. ay protéine la yi mooy yu baax yi yi nekkul yu gars yi di naan di di néewi. Ah, kon sa adversaire est jaar fii sax. waaw ah, dafay war a jaar man dama ko jox da ngay jox benn bitel ñu yóbbaale ko. dafa war a dafa war liggéey am doole. Ah, non fii da ngay mu jël ko da koy jël si. mais ñëw na loolu de nee na ñeme na ko jël si de. may la na ñëw na ñëw ma may ko benn. moo daan te ñëwul ma la benn bu dee ñeme nga moom maas laa koy jox maas teg moom bu am doole quoi eh. Anta. waaw sa bitee la fii fii mooy fan rii lan. rii 37 Mor Anta si dab anti jëndal na la benn biteel nee na nga ñëw jël si ko. xaw ma nag da koy jël si. xaw ma dañ la koy yóbbul lan. na bàyyi 300 yi muy naan. 300 yooyu baaxul baaxul da lay rey yu gën a seer yi la koy jëndal de. déggalu ma la wax. turandoom yu gën a seer yi la koy jëndal de. man déggalu man ay koppoo ñu ne sama ginnaaw nga naan ma turandoom lu garaaw laa lay wax nii maa woo ko ñu mel ne Assane Diouf sama père Mambay Assane Diouf maa lay woo si combat bi nag boo fi nekk sax di jéem a a jéem ay teg ay xel maa woo si combat bi sa combat sa combat di woo anti. sama ñu ngi koy maa lay woo si bi. Janaa Ndiaye Seydou Assane Diouf maa lay woo si làmb ji di woo Mariane Alice maa ngi koy woo bu baax a baax moom la ñu koy woowaat moom sax mooy loolu moom day jàpp suñuy combat ñu ngi koy santat di koy woowaat ci combat bi ne ko mu jàpp si comme daan jàppee di woo suñu maire bi Abdou Aziz Paye ñu ngi koy woo bu baax mu ñëw jàppale ñu xam nga sama tataa ñaaña sama père Cheikh Tall maa leen di woo bu baax ñu ñëw jàpp si combat bi ndax combat bi dama ko soxla làmb waaw Thierno Ndiaye maa nga woo bu baax a baax mu ñëw jàpp si na sama làmb ji xam nga di si woo temps bi ñëpp nag xam nga di woo Thierno Ndiaye ñoom ñëpp maa leen di woo daal ku jum daal juum quoi mais maa ngi woo ñëpp ñu ma daan jàppale rek xam nga ku ma fàttam nga xam sama xel moo tëju di woowaat sama mafia bi sama booy koñ yi mafia bi noowul Baye Fall maa ngi woo ñëpp ak ultra arafas bi booy nañ ci ñëw jàpp. yu mel ni bu Rodrigo booy ay Seexu Maane booy asiko yi ñoom Jean Noël ñoom Gosé na ñëpp ñëw jàpp si làmb ji làmb ji seen làmb la ndax ñun bu dul dara Fass lañ dëgg ay ñun ñoom nañuy tiitaroo ñoom ñun nañuy tiitaroo yaa ngi dégg dama leen di woo ñoom ñëpp jàpp Azalem Fass dolor ma ferñeent bi ay Fass ñëpp maa leen di woo maintenant bàyyi ma fenn maa ngi woo ñëpp taan bi ñëpp ñoo ñoo jàppale ma la war a làmb ji seen làmb la nag incha allah rabbi bu neexee yàlla le 18 ñu dem duma Modou Anta daan ko ñibbisiwaat incha allah. ba tey comme Mass nu mu ko waxee direction le 18 mars Siteu bu anti la ndaanaan bi mbëru ndakaaru bi bu jigéen ndakaar topp ko gël Gueule Tapée Medina Fass ñëpp topp ko mu war a bëreeg Modou Anta sans frontière numéro 2 fee ci arène nationale diggante Kulifay Pam Ndoy ak Yaram Art Production comme ni ñu ko waxee maa ngi nuyu Ouz xam naa ne jox na ma benn biteel maa ngi Mass yokk. mars tamit bi nga xam ni balaa la 18 ñu am kàttan pour mën a jëflanteeg gars yi ci la 18 mars jaa ngeen jëf di nuyu Bakary Idi direction bi yëpp maa leen di nuyu di siyaar alaaji Maas si caméra bi jaa ngeen jëf ah ak beneen champion. waaw le 15 mars open press wu Siteu bu anti fii lay doona ah. Fass SBT Média jeex na tàkk jaajëf.